gi ci aju loolu moom moo ñu koy fasal waaye kàddu yi moom day kàddu cant yu jóge ci moom sëriñ bi wax Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ni ndigal li gàtt na lool diggante bi mu ko waxee ak fi ñu ko defee waaye nee na am na ci lu kawe njortam dëkk bi. ci biir dëkk bi. dëkk bi. ak ci biti dëkk bi. ci biir réew mi. ak ci bitim réew. fu ci nekk rek. it itte am na fa lool. am na ci barab yoo xam ne sax. mbooleem kuy jullit rek. ku tënku ci tariixa ak ku tënkuwul ci tariixa. maase nañ joxe ndigalal sëriñ bi. kon sëriñ bi nee na mi ngi sant yàlla bu baax mboolem mbokki sëriñ bi di ay taalibe ak seex si nga xam ne sëriñ bi moo leen seexal wala ñi defar ci baatin moo xam muy góor wala muy jigéen am na ci daara yoo xam ne ay téeméeri téeméer la te ay soxnaa ko jiite daara yi góor ñi jiite it moom ci biir dëkk bi rek ay junniy junni la kon loolu sëriñ bi wax na ne jàkk yi ci dëkk bi yépp ak daara yépp yëg na ne fu nekk ña ngay doxal lañu war a doxal kon nee na loolu mu ngi ciy sant yàlla bu baax la ca des nag muy muy defar ga ak defare ga nañ ko bàyyi ci loxoom ñu ñu maase ñun ñëpp nag ñaanal ko yàlla yàggal ko fi te defal ko bëgg-bëggam mook mbooleem ñim bokkal sëriñ Touba ak ñi sopp sëriñ Touba ak ñi topp sëriñ Touba wéral suñ borom wéral ay cëram guddal ay fanam ndax taxawaayam ci yoon wi ci lislaam bëg mooy bëgg ñëpp am jàmm bëgg ñëpp jariñu loolu moo waral bis bii te am na ñoo xam ne seen bëgg-bëgg luy jariñ nit ñi rek la luy tax a àggale nit ca yàlla moom bokk na ca ñooñee yàlla na ko fi yàlla yàggal ñun donga eh, yi itam mu yàgg noo jox ndigal ñu yàgg koo jëfe te buñ koy jëfe tam suñu borom defal ñu ay xeewal bala ca war lépp ñu def ko ñun dongo yi ci barkeb Sëriñ Tuuba jërëjëf jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. naa xéewal yi sëriñ bi wax na ne buñ noppee buñ demee ba ci yokk yi ñi indi xéewal yi ñu ngi ñëw xéewal sëriñ bi waajal na ko muy bàyyikoo ci barab yi nekk di ñëw ñu koy toppatoo ñu ngi koy toppatoo kon buñ génnee jumaa ji rek dinañ fekk ñu organisation bi ci yokk yi incha allahu jërëjeen jëf na ñëpp tàllal sëriñ baa ngi ñaan na ñëpp tàllal tey wax amiin amiin amiin amiin amiin amiin yàlla bu baax te delloo gi mu delloo ko ci boppam ba ba suñu xel gën a gën a dem ci moom suñu lépp gën a dell ci moom ñoo ngi sant bu baax a baax di sant ñëpp nag ci wuyu gi wuyu gi ñu ngi sant ñëpp ci wuyu gi ak liggéey bi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf fa tabaarakallaahu noonu noonu noonu dong la noonu dong la nga xam noonu dong la dañ ci dañ dañ ci dañ ci dañ ci sax moom nu de ci nekk waaye nan nan ci sax rek léeg-léeg nu gën a delloo nu gën a delloo suñu bopp waaye ci waaye dañ ci waru waru waruñu cee jóg. Ah, waruñoo jóg ci teewlu tooglu ak ñaan. Ah, ah, ndax dana dugg doomu adama hmm. ak ak ak dox yenn dox yenn dox yenn adduna yi nga xam ne suñu bopp am na soob mu dugg mu doxale ko noonu. te te dara xaju ci doomu adama. kon alhamdulilah rabbil aalamiin noonu rek la dañ sax ci jaamu yàlla loolu moom rek mënu fenn dara andi wuñu fi. jaamu yàlla rek nu fi andi. ak tawfeex jooju ñu am moom boole na Sëriñ Tuubaa nu nu war a moom sax ci liggéey di ko liggéey di ko liggéey di ko liggéey ci lépp lu baax te yàlla rek tax nag waaw noonu rek